an bi Cheikh Tijaani amina ñëw ci couple bi nga xam ne moo di jëkkër ak jabar ñi nga xam ne dañoo nekk seen kër tombeek nga xamante ne moo di weerum koor est-ce que ñoom euh, l'islam may na leen ñu sëy ci weeru koor ak yan heure lañu war a sëy ci weeru koor waaw xam nga aja bi ñu farataalee koor ba mu njëkkee wàcc ci ci jullit ñi euh, islam dafa interdit woon sëy ak sa soxna guddeeg bëccëg yëpp shahru ramadan bi yëpp ah mois bi yëpp dem ba yàgg am ñuy laaxatu a ah, di ànd ak seen soxna yi moo xam ci guddi géej gi demee noonu eh, yàlla dem ba yàgg mu ne non day gi dagal dagalal daganal naa leen seeni soxna ci guddik ramadan guddik ramadan kon sëy eh, ramadan guddi gi lépp dagan na parce que lii liñ la tere rek mooy lekk ak naan ak sëy sa soxna bu fajar si daggee ba jant bi so di maanaam diir boobu la keroog boo dogee rek mën nga ànd ak sa soxna ci kaw bu la neexee ça dépend mais dama lay wax rek ne la lañ li tere woon léegi dagal na la ko kon uhilat lakum laylatu siyam arrafasu ila nisaikum nal nañ leen ci guddik ramadan ngeen sey ak sa seen soxna kon guddi gi moom ba keroog fajar si amul introduction bi jeex na waaw gars yi dañ doon laxatu di sey yàlla ne am na ci ñoo xam ne euh, qad alima lahu annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum fa taaba aleykum yàlla xam na ne am na ci yéen ñuy jéem a wuruj ñuy jéem a naxante di def lu ñu leen tere woon waaye jégal na leen léegi daganal na leen ko su guddi gi jotee man man ngeen di sëy mais bëccëg moom vraiment vraiment c'est interdit waaw. Mhm. ba tey damay des ci li nga xamante ni moo di wàllum couple tey jii jigéen bii sëy tey ci kër moom ban comportement la war a am. mooy comportement bi mu amoon rek avant koor gi xam nga islam itam am nga xam nga islam defe naa ne lekk naan rek moom moom la am différence diggante koor gi ak yeneen mois yu dul xëy na da nga koy dolli su koor gi ñëwee ngir màggaayu koor gi ak worma koor gi waaw loolu moom nga yokk ma ji koy sër ki sëykat avant ramadan ak après ramadan c'est la même chose xëy na bokk na ci ramadan bi euh, jigéenu sëykat dimbale soxnaam parce que nit dina sonn góor dina sonn góor dina nelaw te jigéen ñi vraiment ñoo ñuy toppatul xëdd ñoo ñuy yee ñoo ñuy yee yee ñoo ñuy xëdd ñoo ñuy ma yaakaar ne loolu vraiment taxawaay bu rëy la ci ci jigéen ñi vraiment man gis naa samay soxna boog su ma neexee ma ne samay soxna am naa ñaari soxna mais gis naa seen taxawaay daal vraiment am na solo trop toppatoo gi préparé gi jox xëdd gi du ñu nelaw guddi presque ngir lan nekk ci sa service yow bëccëg bi dañuy war mais guddi dañuy bañ a dañuy bañ a rëcc nelaw ba nga tardé yow kon guddi gi sax du ñu nelaw parce que sa service yi la ñu nekk loolu liggéey bu rëy la nga xam ne yaa ngi ciy topp yàlla mais yaa ngi yaa ngi dimbale nit encore pour mu mun a pratiquer diinaam gën a gën a jaamu yàllaam en même temps yow ngay woorandoo kooku li la yàlla fay bul xam naka la toll gërëm la ngërmande am sa ngërmande borom kër am ngërmande yàlla taxawu togg ndogu vraiment li ñuy toggee yëpp jigéen ñi ñoo koy préparé guddi gi man suñ ma bàyyi woon damay nelaw rek parce que damay sonn mais dangay gis ñu jóg yee la toppatoo la fii boo soxlaa ndox mu tàng ñu amoo benn problème dañ lay faciliter yëf yi loolu liggéey bu rëy la loolu da leen ciy ñaanal yàlla fay leen ci àjjanay firdaws effectivement yàlla àjjanay firdaws euh, lay lay fay jigéen juy def loolu waaw dimbale nit ñi di togg di joxe bari itam jigéen na bari lu muy togg di joxe surtout nag bu ramadan jotee nga ñeme surtout jigéen dafay ñeme ñam bëri looy togg muy bëri eh, di joxe bari looy man jigéen ba ngi lay seetlu ji la fonk ji ma gis la nga fonk di joxe ñam man mën naa toog di la seetaan du ma wax dara mais sooy joxe ñam man gis naa ne amatuma problème suma ma diggante yow mais bu ma gisee nga xaw a rasu rek kooku moom damay damay reyante nga fexe mu deñ parce que parce que baaxul joxe ñam yërmande la te mag ñi sama yaay eh, day wax ne ji jaboot sooy joxe ñam sa doom du xiif ci àdduna bi dañ koy wax sama yaay xëy na toggatul léegi bu ñuy bu may waxtaan jigéen man damay jël exemple sama yaay parce que ba dund ak man dama dund ak moom ba bi ñu nekkee ay xale yu góor di dem ci àll bi di di dem fu mu toggee añ dina tibb njogonal soo waxee mu ne sama doom yi kenn ñëw wala bu ñëwut ma dox ma jox ko doomu jàmbur waaw day joxe ñam waxuma yàlla gi nga am mais nee na jigéen sooy bari looy joxe ñam sa doom du sonn ci àll bi xëy na mu def ko ngir yàlla def ko ngir loolu jigéen dafa war a bari lu muy joxe ñam. القدام لكون في صفاء